voilà Youssouf Bodian. waaw. waaw waaw yaa ngeeg euh, Macky Sall. waaw jamono jii ñu ngi jëloon Macky Sall bokk ba pare kon nañu jël réaction ba mu ba ci bu mu ba pare ah voté na fii ci sens kenn moomu ko nañu euh, ñu ngi sant suñu borom euh, di am mbégte itam ci li nga xamante ni noonu la bi tàmbalee ci bët bi. gis nañu ne sénégalais yëpp teel nañoo jóg teel la ñëw rang loolu nag mooy signe maturité réew mu ne sa maturité ak sa démocratie ñu ngi koy nattee ci façon bi ñuy wootee euh, Sénégal nag yaakaar naa ni ku fi indi xew da xam ne vraiment bokk nañu ci peuple yi gën a am taxawaay ak euh, maturité ci wàllu élection ak wàllu démocratie dañu naan yàlla rek journée bi yëpp nag mbir mi continuer nii ba nga xam ne li ñuy jukki mooy li sénégalais yi bëgg loolu lu am solo la pour avenir réew moo tax euh, ñuy sant ñëpp ñi nga xam ne def nañ seen kéem kattan ngir bokk na ci euh, observateur nationaux yi nga xam ne ñoom ñu ngi bokk na ci euh, observateur international waaye bokk na ci journaliste bu presse nationale Euh, si li nga xam ne noonu ngeen di liggéeyee rajo yi vraiment rajo bi nga mu ngi def lu mu mën lu mu mënul télévision yi presse écrite ñoom ñëpp seen liggéey euh, rafetlu nañ ko euh, ndax ñoom ñoo tax ñëpp di suivre lu xaman ci xew ci biir réew mi ba bitim réew rafetlu nañu aussi taxawaayu ñëpp ñi nga xamante ni presse internationale la parce bi yëpp tey mu ngi suivre lu xew ci réew mi kon nañu bàyyi li ci def nag yàlla ñun def nañ lu doon suñu wareef bu gër yàllaa ko ak sénégalais yi te am nañ ci njort waaw loolu daal laa bëggoon noonu ñi ñi ànd ak yow lan nga leen di wax tey ci bët bi ñu ànd ak man mooy ñu ne ñu teey ànd ak confiance nga xam ni ah, am nañu yaakaar li ci def nag ni ma ko wax dañ ko bàyyi ci loxo yàlla leneen li tam mooy ma wax leen ne toujours nañu bàyyi journaliste yi moom d'ailleurs ñun mosuñu attaqué journaliste nga xool toujours agression yi amoon na suñu côté kon nañu gën a yombalal liggéeyu taskatu xibaar yi di ñu def tam ñu toog déglu ndigal fii euh, ak guddi ñu xamee ñu mbir yi demee dañu yàkkamti daal ci di génne wala di wax wala di kii ñu ne tey on suit tout la situation est tout à fait contrôlée. En français, Macky Sall vient de voter euh, son soutien Mamadou Sall.